ajuma joni mel waa ndakaaru duñu ko gaaw a fàtteeti ndaxte ci suba ba tey maam yàlla mu ngi ubbi asamaan si di si wàcce ay xéewal loolu nag moom moo waral ay gox yu bari fii ci ndakaaru ndox bi da leen a mujjee moom ah, yu si mel ni ay Fass Gueule Tapée Almadies ak i sax yeneen i bërëb ah, ba tax na ah, am na sax benn soxna bi nga xamante ne moom dafa mujjee ñàkk bakkanam moom nag soxna si dafa nekkoon ci biir ndaamaram di dawal taxawal laata euh, ndox bu bëri nag di ñëw di envahir corniche ouest bi loolu nag mu ngi xewee rek ci tunnel bi nga xamante ne soriwul dara ak euh, ambassade Égypte ak itamit bureau architecte bu mag boobu di Pierre Goudiaby Atepa moom nag euh, soxna si dafa nekkoon ci otoom rek di dawal ginnaaw bu mu gisee ndox bu bëri nekk foofu ci tunnel bi ci anam boobu sax la wàccee di xool situation bi moom nag bu mu gisee ni oto mënul woon dem mënul woon dikk di la delluwaatee nag ci biir ndaamaram di récupérer bagage yi mu fa amoon waaye nag bu mu ci duggee mujjul génnaat ndaxte ndox bi dafa mujje jël hauteur bi nga xamante ne porte yëpp dafa bloqué woon soxna si nag dafa mujjee ñàkk bakkanam ci anam yooyu sapeur pompier yi jësi nañu ko